salaamaaleykum am internet bi Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla baax ci ni nga nuy toppee di nu ñaanal di nu seen émission Dakar Buzz sociale jógaat na comme ni mu koy defee rek waaye laataa dara ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen fu émission bi toll yéen yéen a ko fa yóbbu mooy yéen ñi ne fii ci réew mi ak yéen ñi nekk ci diaspora bi di gën a jaajëfal groupe bu Dakar Buzz yi muy groupe bu Dakar Buzz social social. taxaw Dakar Buzz te soxna Awa Dia jiite ko depuis Maroc aide sociale te maam Diarra si la nekk ca ak ñoom Xaadim Amar ak ñoom Mouhamed Amar maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di gën a jaajëfal yéen ñi nga xam ne rek yéen ay bàyyi xel Dakar Buzz sociale ak ñaan yi ngeen di ñaanal man yëpp gis naa ko yàlla nañu bokk ñaan yi ah, di gën a ñaan tawféex ci sama maladie yàlla yàlla yëkkati leen wéral leen jógaat naan sol sunu dàll comme ni koy defee ñëw tey seet si sunu benn doom joo xam ne dafa feebar. feebar bi nag di cardiaque cardiaque di feebar boo xam dafa laaj ay moyens parce que bu la dalee te doole bëriwul day métti waaye di sant yàlla ci ni ngeen di toppee plateforme boobu 78 601 11 11 mooy plateforme Dakar Buzz social bi nga xam ne ni ngeen képp kuy bàyyi xel émission bi rek boo fa yónnee téeméer ba lu mu doon danañu arrangé ndax danañu permettre su may seeti malade naa ci mën a jël jox ko malaat bi ndax nit ki ñun Dakar Buzz bëggul rek seeti malade wax ak moom bàyyi mu néew mu bari bëgg na cee barkeelu kon ñi ngi sant yàlla ci ni ngeen di bàyyi xel numéro boobu di ci yónnee gis nañ lu baax li ngeen ciy def yéen ñëpp umu ja umu jàllo maa ngi lay nuyu itam di la gis nañ lu baax li ngay def ci émission bi di sant di ñaanal ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi bàyyi xel Dakar Buzz Social ñëw nañ comme ni ñu koy defee rek waaye di ci xaar solution ci xaar solution parce que li ma naan Dakar Buzz yaakaar naa ne xanaa lu mu yëgul waaye lu mu yëg incha allahu yàlla dina jëf tawféex ndax yéen lañ ci yaakaar ñoom Dakar ba leen ci yaakaar ñun yéen lañ ci yaakaar dama waxtaan ak papay xale bi rek euh, lii dal xale bi kañ la ak ko dalee euh, ku baax ki maa ngi la. Sidi. Sidi. waaw. Ah. doom ji nu mu ko dal. Fatima dafa am feebaru cardiaque. depuis kañ mun naa ne nag euh, def ko judduwaale. waaw yéex nañ koo xam daal. ndax dañ ko yóbboo hôpital am na hôpital yu ñu jot a jaar mais dañ ñu doon wax na asma la mais bañ ñu yebalee ñu dem fan bañ defee traitement yi ci lañ xam ne dafa am problème mu kër bañ bi mu amee problème mu kër nag après ci lañ tàmbalee di def traitement yi ñu def traitement yi def traitement yi suñ borom suturaal ñu nag ba mu des wàllu ñu ne dañ ko war a opérer. léegi nag bañ ñu wa waxee dañ koo war a opérer ñu bindal ñu xéewal 3 millions te 3 millions yooyu nag wax dëgg yàlla yoruñu ko waaw moo tax ñuy ñëw di toog di bëgg maanaam ku ñu ci dimbale daal te yàlla rek tax ngir xale bu faju loolu rek lañ ci loolu rek lañ ci jublu waaw mu wér daal moom lañ ci bëgg waaw. jërëjëf bilan bi 3 millions la. Ibrahima 3 millions te doole bariwul. waaw sa doole bariwul waaw. doole bariwul wax dëgg yàlla su doole bari woon moom wax dëgg yàlla kon nag def nañ ko bu yàgg daal mais ñàkk doole moo tax waaw ñi wut ndimbal daal ku ñu ci mën a jàppale pour ñu traité ko daal mu wér ak jàmm waaw. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen lim ci wax defal nañ ko bilan 3 millions la te doole bariwul waaye sant yàlla rek parce que euh, am nañ njort bu rafet ni Dakar Buzz moom fi jaar. yàlla dina ci def tawféex comme yeneen cas yi rek su ma koy dugal day métti mais bu cas bi duggee rek wax dëgg yàlla malade bi sax dafa may woowaat ne ma Fadel ñu ngi may jàppale kon yàlla na ci bii bokk ndax wax dëgg yàlla euh, am nañ ci yaakaar bu baax xale la te jigéen la te ku ne xam ne ne cardiaque dafa métti ordonnance yi métti na te it opération bi ma leen ci talal yéen ñëpp rek te xam ne daal kuy defal yàlla daal mi ngi nii ku ko mën a jël en charge moo nu gënal. ku ko mënul tam lii sa wërsëg nga domp ci jox ki nga xam ne mooy wéy juróom mu mën koo dajale su ma tee lim boobu mu dem defi opération bi moonu gënal mais daal yaakaar na leen ci yéen ñëpp di sant yàlla nag ci plateforme boobu di 78 601 11 11 muy numéro plateforme Dakar Buzz wax naa ko sànq ñu gis ni ngeen koy bàyyee xel ndax yéen a ngi ciy dugal xéewal xéewal googu ngeen ciy dugal jàppale nañu parce que loolu moo ñu permettre bu ñuy seeti malade mën cee jël jox ko kon loolu képp kuy bàyyi xel plateforme boobu rek ñu ngi la ci gërëm di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla taxaw la ci jàppale leen ba tax na Dakar Buzz Social dana ko jàppale fukki junni ndax bëggunu ñëw tourné malaat bi rek bàyyi ko mu dem dañuy ñaan yàlla euh, kun tourné rek li ci tëwat ñu jox la ko ci 3 millions la fukki junni lañ ci dugal tey ni ñaan mu barkeel ndax kun ko mës a jox rek wax dëgg yàlla def na gis nañ ci tawféex kon ñu ngi ñaan suñu fukki junni yàlla na barkeel jaar fi yeneen vidéo yi daan jaar ba mën a mat xéewal googu mën a def opération bi kon ma jox ko fukki junni Ahmed Dakar Buzz Social jàppale na ko cinquante mille jëlee ko ci plateforme boobu di ci xaar nag seen loxo te ñaan mu barkeel tey ji eh, Dakar Buzz Social mi ngi la seet si ngir ñaan dimbal pour sunu doom ji mën a gaaw fajo doyatul mu yëkkati xéewul fukki junni jox la ko eh, ngir participer ko ndax booy def lu baax yaa ci jiitu waaw eh, yëg-yëg bi la la ci Dakar Buzz. waaw sant leen rek di leen gërëm di ñaanal tawfeex wax dëgg yàlla ndax seen liggéey rafet ñu ngi gis ni ñuy taxawoo doomu aadama yi ndax nit ku amul doole ñëw di ñaan ndimbal nga jàppale ko ba pare ca kaw jàppale bi maanaam yow nga jiitu ci kon loolu dañ leen sant bu baax di leen ñaanal maanaam ñoo xam fuñ luñ bëgg daal yàlla nañ ko yàlla defal ndax lii ak cant la wax dëgg yàlla maa leen sant bu baax nag di leen gërëm di leen ñaanal ndax ñun ay jaam yu xeebu lan rek waaw ñaan rek lañ am. kon dañ leen a bàyyi ak sunu boroom mi nga xamante ne ni moom moo mun a fay yàlla na leen yàlla fay gis nañ li ngeen taxawee doomu aadama yi wax dëgg yàlla dañ koy seetaan di gis waaw lu bari wax dëgg yàlla te lu bari ci foofu lay jaaree di sunu boroom di ko dogal muy saafarawu foofu kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax maa leen di ñaanal tawféex waaw di sant sama maire bii nii waaw daan kumba ñu gën koo xam ci ko wax dëgg yàlla moom. def na ci lum mu mën ak lu mu lépp wax dëgg yàlla waaw moo ci jàpp ba fii nii waaye buñ toogee fii tey di wax ginnaaw yàlla moom la amuñu fayam nag dañ koy baag yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay barki maam am Fall mi ma yaakaar. jërëjëf mbokk yi am internet Dakar Buzz lii mooy nekkoon seen émission Dakar Buzz social di gën a gërëm rek tànk mba mi wax mu ñu ko ko ndax wax dëgg yàlla man biir na ne bu yoon xéewal gu mu ko fajee moo koy faj. kon ñu ngi ñaan moom sax dafa wérul yàlla yëkkati la yàlla fëgg sa bopp ba li nga bëgg ci sa set bi yàlla defal la ci ndam ba incha allah ma koy jël siwaat ndax émission bi ñaari vague lay doon bu ma ko jël see nii mu feebar damay ñaan yàlla mu wér ma jël siwaat ko kon yàlla nañ ci am ndam waaye di leen seeral ni Dakar bu social jàppale na ko cinquante mille te ci xaar seen ndimbal nag ndax xale bi du cinquante mille moo ko war a faj waaye dadi booy def lu baax yaa ciy jiitu ñun Dakar Buzz ku nu seeti rek duñ ñëw wax rek bàyyi la mu néew mu bari dina am lu barkeeloo te wax dëgg yàlla kun ko mos a jox rek suñu xeel daal na ci yàlla na ci bii bokk yàlla na ci bii bokk di nuyuwaat samay nit ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci émission bi Mouhamed Amar def ko te lu baax nga tey nit ku baax nga maa ngi la ciy xaar Khadim Amar maa ngi la ciy xaar Emma madame Amar maa ngi la ciy xaar nit ñu baax nga ba ci Malick ak ñeneen bari nañu damaa cité ñooñu rek ndax ñooñu moom samay nit lañ ñoo xam ne daal man bu ma neexee sax poñe leen kon maa ngi leen di xaar ci kaa bi te xam ne kaa bi seen kaa la xale la te xam na ni ngeen fracturé ci xale mënoo leen a gis xale bi souffrir xale bi mi ngi souffrir te war nañoo def opération pour mën koo génne ci lii fi nga nu mu toll nii ça fait ñaataat la moom. am na quatre ans. waaw. quatre ans am nga ak âge quatre am toll nii nekkul yoon. Hmm, waaw du yoon moom wax dëgg yàlla. mën nañ ne feebar bi mu feebar nii moo tax mu toll nii ndax loolu lañ ñu wax nee nañ fak defuñu ko opération rek pour mu màgg waaw problème la du màgg nii daal lay toll daal waaw. bébé noo tudd. waxal ni nga tudd. noo tudd. ndeysaan moom noo tudd. noo tudd. xanaa noboo Fatima. Fatima moom xamul sax li ko dal saan mais mi ngi souffrir nanu ko jàppale xale la te wax dëgg yàlla jigéen la te jigéen mooy magasin suñu borom ndax lu baax lépp ci la koy denc kon ne ku ne def jël kaa bi def ko kaam def ko sama doom def ko sama sët def ko sama jarbaat ñu koo jàppale mu def opération bi a faju di nga faju wér dégg mbokk yi kon lii moo seen émission Dakar Buzz Social ci micro bi ngeen tàmm di gis la ci cadre bi tey xamadi laa ci àndal te ñaan ngeen fekk sunu ci cas bi de ku ko mën a jël en charge fayal ko opération bi moo nu gënal ku ko mënul itam lii sa wërsëg nga jël ci jox papam mu mën a faju numéro papam di gis ci baaru écran bi ku ko ci woo di nga ko jot jërë ngeen jëf jërë ngeen